saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gaston Mbengue combat ba war a dox diggante Lac de Guiers ak Eumeu bile combat revanche la doon king ca xamle mooy fas yéene na tëgg le 4 avril combat Eumeu Sène Lac revanche ba fas yéene na amal le 4 avril bii ñu dëgmal li ni mel lu officiel la wala déet en tout cas la Gaston xamle mooy suwe kese la càkkuteef la ci man ma bëgg ko xalaat ko jàmm bu nekk am na droit bëgg mbir di ko sabab lu man noonee nekk ci promoteur yi yaa ngi xool Gaston Mbengue xamle wante lam ca toftal moo am solo le 4 avril damaa bëgg ñépp xam ne Gaston Mbengue moomu ko CNG moo moom bile date te defuma forcing sama càkkuteef laa def wax sama xalaat wax sama bëgg-bëgg li ma bëgg mooy amal combat Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Modou Anta ak Diène avril waaye damaa bëgg ñu xam ne li ni mel ajiwut ci samay coobare teewut nag sama bëgg-bëgg la moom lay sàkku li ma wax man la engagé tiitu ci ragalu ci que tiit ca xamle rax ca dool ne bu ñu deful attention lamb ji di ubbi 2021 2022 la jëm li ni mel bu dakul liy raam ci ñag bi la jëm liy raam nag du leen lu nar a xaar ba Sénégal jot ci vaccin yi ñuy soog a ubbi saison bi te bu boobaa lay am mooy ñu dem muy Modou Lo di Ama Baldé di mbooleem mbër jotoon avance yépp dépassé nañ seen xaalis bi mbooleem ñi fi jotoon avance amatul kenn ku fi dencub dërëm li état war def mooy accompagner promoteurs yi ñu tëgg combat yi rax ca dool ne rëg gannaaw ba mu nekkee ca États-Unis ci ay entraînement tey la fa fas yéene jóge jëm ci Singapour combat ba war dox ca digganteem ak Camerounais ba Alain Ngalani moom la fas yéene waajali gannaaw ba mu jàppee Sofiane Boukisu le 14 bii ñu génn làpp ko làpp yu metti mu ngay waajali fële ca Singapour Camerounais ba la fas yéene am jëflanteeg moom ba nu ko laajee xalaatam ci combat boobee moom rëg-rëg la mu xamle mooy maa ko gën taxaw fuuf Camerounais kon mbër bu ko rëg-rëg daanee daan na champion fa nuy jeexale mooy ca Mamadou Sarr président écurie Texas ba nu ko laajee ca huis clos ba mu xam le mooy du la meilleure formule huis clos àndut ak lamb lamb àndut ak huis clos dama bëgg ñu xam ne lamb ji discipline bu assez particulière la bokkut ak football bokkut ak basket bokkut ak yeneen sport yi dafa am luy xorom si muy bàkk beeg tuus yeeg amateur yeeg supporters yi nekk ca kaw stade ba